Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi ñuy sibur fii ci People 221 ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di am mbégte ci ñëwaat sunu kër gi tey nag ñoo am sunu benn invité boo xamante ni kenn dootu ko présenté ci lamb waaye kenn dootu ko présenté ci sunu kër gi mu di mu di Djily Wade nekk manager école de lutte Mor Fadam nekk membre aussi tamit ci fi nga xamante ni mooy CNG fan yi nag dañ koy soxla mu ñuy jaay ni mu ñuy jaay ni daal dafa xew dafa saturé di ñu dawloo quoi te loolu yoon père dañ lay bàyyi waaw salaamaaleykum mbokku internet yi ñu ngi leen di ziar di leen nuyu yéen ñëpp di nuyu ñi nga xam ne ñu ngi suivre People 221 di nuyu mbokk internet yëpp di leen wax ni ah kontaan nañ ci invitation bi waaw juste rek di la wax ni Euh, man ménager école de lutte Mor Fadam laa je ne suis pas membre du CNG. c'est que nag ñu bari dañoo defe ni rek. non non CNG membre da ngay da ngay nëbëtu rek. non non non non non non c'est que xam nga CNG continuité la quoi bu fekkee par exemple comme état la bu fekkee dafa am loo xam ne par exemple wax na ko te leerul ci bopp ni ñi man jàpp naa ni un yi ñoo ko war a eggale askan wi quoi wala ñu eggale ko vraiment école de lutte yi wala euh, mbër yi parce que ñoom la ñuy liggéeyal. comme ñun ay prestataire de service la ñu. kon yow doo embossement doo embossement biir CNG. non non non man simple ménage laa fa. mais des fois da ngay mos dara pour noppi xam naa la. Ah, non non non doxewuma noonu man lamb laay liggéeyal quoi. Ah. waaw lamb laay liggéeyal. mais naka nga gisee euh, saison bi passé euh, analyse bi gaa yi def ci lamb naka nga ko jàngatee. waaw non saison bi passé saison boo xam ne dafa exceptionnel la quoi parce que critères yi ni mu demee la woon xam nga saison boo xam ni Covid daf ci duggoon ba ñu def prolongation ndax Covid bi mënut a bokk ak saison boo xam ni day doog a démarrer nii. parce que saison bi ku ne xam na ni Covid bi daf ci dugg ah nu am ci arrêt prolongé waat saison bi ba moo tax saison saison de lutte bi benn mois la tëj. gars yi ubbiwaat administration bi ubbiwaat nu lancé waat date yi. Mhm. mbër yi commencé waat bëre. Mhm. loolu la quoi. Mhm. mais ñu gis ni keroog man xaw ma ci saison bi passé la xaw ma ci début saison bi. waaw stade Iba Mar am lamb ju fa amoon ba miir bi daanu est-ce que loolu noonu baaxul baax na ci ci image yu lamb. waa non loolu xam nga euh, euh, erreur la boo xam ni du ci du ci yoonu lamb sax mën naa ne nekku ci. Hmm. parce que peut-être stade bi nawet bi côté bi stade bi yàgg na nawet bi jàpp na ko ndox mi moo tax foofu gën a tooy miir bi côté bi mu daanoo. incident làmb la quoi incident la boo xam ne ci làmb la tombé mel mais mënoon na tombé ci handball mënoon na tombé ci leneen. loolu moom vraiment kenn souhaité wu ko. c'est pourquoi sax ñu arrêté Iba Mar ba jël date ya fa nekkoon ak promoteur ya fa nekkoon andi leen au niveau. de l'arène nationale. ci gis-gisu làmb saison bi passé bilan bi école de lutte Mor Fadam def euh, lan nga ñu ci mën a ndil ay leeral. non bilan bu positif la j'ai fait presque trente combats dix neuf victoires. kooku ci école boo xam ne presque ay cinq six sept combats la doon am. Mhm. tey. ñu jël ko assurer la relève yóbbu ko 30 combats 19 victoires vraiment c' est un acte c' est un pas. à saluer quoi. kooku nag dama ci remercier bras technique bi leen ñaan nu gën a liggéey rek. pour mën a ami ngemb door ci kanam quoi. mais 30 combats ci benn saison vraiment defe naa école yi lii di ko def motuñu 5. motuñu 5 ñu ko def. loolu nag c' est à saluer quoi ab liggéey la ab liggéey la. ñu gis aussi tamit ren. taxawaay bi nga xamante ni tamit làmb am na ko ñu gis ni ko yi teel na taxaw coow li teel na bari dat yi neex na euh, naka nga jàngatee loolu. waaw c'est une bonne chose hein parce que tamit les bailleurs làmb yi nga xam mbër yi nga xam ne kii promoteurs yi nga xam ne ñooy dugal seen xaalis teel nañ leen a lancer dat yi teel nañ ñëw jël dat yi. ba actuellement nii boo demee arène nationale wala nga dem foofu li fa des ci ay journée presque samedi dimanche yi gars yi jël nañ ko ba li quoi loolu moom. vraiment gars yi ñu ngi góorgóorlu quoi promoteurs yi ñu ngi yokk journée yi ñu ngi yokk lamb yi ñu ngi taxaw te euh, débuté nañ saison bi parce que trois journées jàll nañ déjà. Mhm. ñu gis ne am na ay jafe-jafe yu bari yoo xam dana am entre promoteur bi ak mbër mi muy problème mu cachet taxaw di ay cent ay deux euh, dafa mel ni loolu noonu yéen manager da ngeen cee joué bu am solo ba tax léegi promoteur yi ak mbër yi tamit jubóo nañ parce que ku mel ku ci mel ni Gaston doon na wax ni moom dootul fayati mbër cent waaw moom am na ci droit puisque bailleur la moom day dem jëli xaalisam ko ci làmb te Gaston ku ne gis na lay tëgg lu ne mu ko ci daj te koo xam ne booy yi di bëre yëpp tey presque ñooñu seeni waajur bi ñuy bëree moo leen doon tëggal mhm. kooku lu muy def c'est un acte à saluer mhm. kooku bu fekkoon am na ñaar ñetti Gaston làmb avancement rek nga ciy gis mhm. bu nee dootul fay cent millions ci làmb c'est peut-être moom mi nga xam ne mooy investir xam na ni loolu arrangé wu ko moom mooy xool gâché global bi nga xam ne moo ko arrangé bu tëggee làmbam génn ci mu tëgg ko parce que ki jaay kii jënd la bëgg ah te moom wax yàlla kenn du ko jël di gas suul yombul parce que mënoon na jël xaalisam promoteur du force investir ko ci leneen bu ko investir ci làmb Ah, am ci dara la bëgg. am ci dara la bëgg loolu loolu mu wax noonu ma dama ci d'accord ak moom. li mu li mu mën a fay rek lay fay jaay jënd la làmb lay fay bu yow yow mi nga xam ne par exemple yaay bëre su la jaralee nga jël bu la jaralul ngeen ko du ma bëre ci lii. tout court mais moom li mu wax am na ci droit. parce que làmbam ay événementiel lay tëgg te da ciy investir beaucoup d'argent. Mm-hmm. te grâce a lui combat yu mag yi ñu am yëpp ah amaat. parce que boo beaucoup de promoteurs ont abandonné. bi mu méttee mais moom dafa ñëw taxaw dëggal boppam dafa ay événement yu mag mbër yi bëriwaat. Mhm. loolu tax on a besoin de lui dans l'arène. Mhm. waaw di ko ñaanal gudd fan wér. Mhm. ma ñëw ci géejawaay ñu gis ren daanaka géejawaay tanoor yi fi nekk yëpp am nañ combat ba mu des ki nga xamante ni mooy Lac de ak guy gi avant may ñëw ci loolu ana guy gi. ah guy gi mi ngi fi. mu ngi ci ay en tout cas gis naa ko demaguma école nag man bi école ci léeg-léeg te du wax lu ma xamul. Mhm. mi ngi fi. Mhm. te xanaa mbër kay wax dëgg yàlla comme mi ngi fi te amagul combat mi ngi ci ay entraînement. Mhm. bu ci nekkee de moo ko war entraînement daal fi mu toll nii moom lu mu def lu dul loolu moom. mi ngi nax bopp parce que bëre woo entraîné woo guy gi du maçon du mécanicien di mbër la kon heure bi daa war a nekk ci entraînement mais lan moo téye combat ba tey parce que tanoor yi fi nekk yëpp am nañ combat te guy gi avant combat yi di fës bokkoon na ci nga xamante ni doon nañ annoncé seen combat comme ku ci mel ni moo Yékini Junior ku ci mel ni moo Papa Sow euh, lan la ci yow la wala ci ci yi la non du ci man du ci moom du ci promoteur bi presque man dana neex ci contexte la parce ko jox man jàpp naa ne peut-être moom waragul a bëre ak yi ñu bëgg ñu ngi ci ay combat làmb nag fi mu toll nii ab ëmb la takk bu feccee guur bu tasee rek ba feccee ko day am adversaire mhm. parce que Papa Sow guy gi mësunoo sunoo mhm. te seen làmb mhm. combat bu bu nit ñi soxla la moo Reug Reug moo comment dirais-je euh, euh, adversaire bi euh, Siteu bëre woon nanu mu daan ko mën na ko may revanche kon kooku defe naan combat boobu tasee sax mën na fa am adversaire kon yow da nga taxaw samp sa ndënd ci Papa Sow ak Siteu ku ci daan guy gi jël la non ku ci daan bu ma seetsee ma jël la loolu kay wax dëgg yàlla moom bitti la fanaan guy gi daa am fu mu liggéey ba dugg fa. ñooñu ñooy ay adversaire am wax dëgg yàlla. ñooñu ñooy ay adversaire am actuellement nii. mais Yékini Junior kenn mësuma ci wax. boog loolu moom pour muy leer kenn mësuma ci wax. Yékini Junior waaw mais bu ñu la ko proposé woon nga jël ko. ah loolu nag c'est à voir parce que Yékini Junior gëj naa bëri te est-ce que Yékini Junior mi ngi mi ngi mi ngi actuellement. di mu ngi en activité ba rek ah waaw loolu nag ama nag man tamit bu may bëri tamit ñu nekk en activité laay bëreel de mhm. mënu ma dem gis mbër moo xam ne xaw ma fu mu nekkoon mhm. toog lu yàgg-yàgg bëriwul wala xaw ma ba xam mi ngi moo koy jël mais ñu gis ne guy gi fan yee passé sonaloon na fi Eumeu ba ñoom ñaar dajewoon nañ sax ba xaw a euh, loolu ay euh, mise en scène la woon wala combat boo xam ne parce que guy gi yàgg na sonal Eumeu Sène combat la boo leen bëgg wala tout bon lutteur ci xolam boo ko xaree bëri Eumeu Sène la nga cay fekk amul benn mbër bu xool benn champion bu bëgg te bëreeg Eumeu Sène icône la c'est un champion. xam nga bëreeg moom day am fu mu lay jëlee am fu mu lay yóbbu. mais Eumeu Sène boo xoolee aajam fi tool ak guy gi aajam fi tool mais Eumeu Sène war na mën a may guy gi chance. Eumeu Sène mooy may guy gi chance guy gi moo bëgg a bëreeg Eumeu Sène. c'est pas Eumeu moo bëgg a bëreeg guy mais guy gi moo bëgg a bëreeg Eumeu Sène. parce que da ko jàpp comme. référence jàpp ko comme idole teg ko bët xam ni kii bu ko daanee rek dina bokk. fi mu war a bokk. Hmm. loolu moo tax mu bëgg a bëri ak moom. d' accord ma am benn jàngat bu ma def ci leaderu Géejawaay. Hmm. mu mel ni boo xoolee am na benn image buy daw fan yi muy Lac de Guiers ak ñaa ak ñaabu ndaw. ñu gis ni daanaka booy ci am combat ay ñoom caatuwaalo ñëpp Lac de Guiers mu ngi seen ginnaaw di leen teete di leen yóbbu ci géej gi ñu gis ko tamit ci école de lutte Balla Gaye école de lutte Mor Fadam lan moo tax mënuñoo am loolu mënuñoo am lan comme tanoor yi nga xam ne ñoo nekk ci kaw mën naa ci ku ci mel ni guy gi pourquoi tey mën ta ñëw uuf ay rakam di ànd ak ñoom sur le terrain ku ci am combat mu ñëw taxaw la di ànd ak yow fajar comme ni ko Lac de Guiers defee comme ni ko Balla Gaye de defee. xam loolu guy gi koy laajte man ab la sama devoir les plus absolu mooy coach ci école bi ak yi ma wax leen fi ñu war a teg seen tànk kenn ku ci nekk moo war la li nga war a taxawee. idée bi Lac de Guiers am peut-être ak bi Balla gay am ak bi guy gi am. kenn ku ci nekk ak sa mentalité mënoo répondre ci ci ci li nit kii xalaat wala ni muy doxale xam nga mënuma la ni guy gi lee tax defu mënuma la ni mi ngi koy def kon question boobu man mënuma ci tontu mënuma ci tontu d'accord moom moom xaj na xam na li tax defu mhm. d'accord ma ñëw ci combat yi nga xamante ni daanaka am na fi may njëkkee muy Balla Gaye Boy Niang combat boobu noonu boo ma ko doon analyser naka nga ko jàngatee en tant que en tant que amateur ñu bañ a wax en bi que ménager parce que géejawaay nga dëkk. waaw géejawaay laa dëkk mais man làmb faral fan la lu ma mër xam nga lan mooy problème mooy booy ñaa koo gis bu fekkoon làmb ji suba suba la booy ñaa pare na parce que ci li ma gis dafa liggéey ba bari doole. xam nga dafa liggéey ba nga xam xool boo xoolee blouson bi góor mbër moom bu liggéeyee ba wang rek am na doole ku xool Boy Niang xam ne am na doole te xalal la te mën naa bëri. kon Balla Gaye moom amagul doole. mais nag loolu moo doyul pour daan Balla Gaye aussi. que Balla Gaye c'est un lutteur boo xam ne mënoo koo calculer. Balla Gaye moo la joxee exemple par exemple ci bi muy bëreeg contre Modou Lo bu mujj mais ñëpp dañ ko xool contre Gris Bordeaux ni kii mënta yëngal euh, Modou Lo nu jàpp loolu mu dem indi beneen facette ñëw indi doole ju weex tàll indi bëre indi leneen ngeen ni kii du Balla mm-hmm. mais mën na demee noonu cette fois ci combat bi dafa des de mm-hmm. deux mois boo ci gisee Balla Gaye mën nga jis ci moom doole mën nga gis bëreeg fit moom wax dëgg yàlla moom kenn du ko waxaale. mais ñu gis ni souvent Boy Niang dafa ay ci mbër yi nga xamante ne dañuy attaqué maanaam Boy Niang dafa ay ci mbër moo xam ne day attaqué. ah non te Balla Gaye combat am ñëpp xam day attaqué mais boo Niang ces deux derniers combats yi mu am daf ci am blocage ñaari dernier combat ci luur yi mu am am na fa kon da nga jàpp ni moom day am problème ci luur yi. Ah, loolu la wane deux luur yi mu mujj a dajale nu mu am. Mhm. kooku tamit. nit ñi dañuy posé wu la question pour ko mu am blocage ci luur yi. te xam nga ni Balla du lese. luur bu mën a bëreel. mën a xeex am ngemb sap sap lam. combat la de. mais keroog bi ñu ko laajee dañuy moom booy ñaar dañuy. waaw bi ma jugee ñaaru luur yooyu noonu dem naa yokkaat sama expérience combat bi du mat sax 5 minutes est-ce que Balla Gaye ak booy ñaar jàpp nga ni combat boobu a passé 5 minutes. booy ñaar combat la boo xam ni mën naa dépasser 5 minutes mën naa bañ a dépasser 5 minutes que nag ñaari bërikat lañu boole de booy ñaar day Balla day bëri booy Niang moo féete xale mais Balla mbër la moo xam ni boo ko joxee mag mu bëri moom boo ko joxee xale mu bëri ak moom. Mhm. loolu maa la wax loolu. Mhm. combat boobu moom. Mhm. loolu moo tax promoteur bi def ci xaalisam. mooy les gens xamuñu luy xew. keroog ñu ñëw ci jàkkaarloo bi mu mel ni am na lu fa xaw a am loo xam ne xaw na nduroog violence. nu mel ni ñii di clan Balla Gaye ku ci mel ni Boucher maa ngi ko dégg muy wax nii combat bi di ñëw wala jàkkaarloo yi di ñëw sama bakkan laa ci teg parce que keroog booy ñaa laal na Balla Gaye loolu xaw a indi benn polémique est-ce que loolu du indi violence ci làmb non Boucher bu waxee mu ni mu ni bakkanam la teg ci ci keroog li tax booy Niang di laal Balla Gaye keroog laal boobu noonu Boy Niang di ko laal Balla Gaye naan ko bu ma laalaat est-ce que loolu mën di mën ta violence ci làmb waaw non non non bu fekkee moo laal Balla Gaye moom ba ñëpp gis ko waru ko laal parce que nag ci face to la face to face moom fa la làmb di commencé puisque c' est sous la supervision de de de ñi nga xam ne ñooy superviser CNG bi ñoo fa ñëw dañ la bu ko touché bu ko laalal dara bu ko sànni dara loolu la la te laal na euh, Balla Gaye ñëpp xam na ni dafa loolu loolu baaxul loolu mën na créer violence loolu moo doon xeex foofu face à face bi am problème yàqu te bu boobaa kan la ñuy wax ñaar ñi leen yëkkati ñu taxaw ba laalante te kenn doxul seen diggante tamit loolu ça peut créer la violence parce que tey Ah, euh, sa tempérament la sax dafa jaaxal ñëpp parce que grandeur la di foofu. bu doon par exemple yenn nit ñi bëgg combat ba yem bu ko laalee. Korpañ mën na faa takk làmb ji am problème. te lan la wax kenn warut a laal sa morom. foofu foofu boo ñaaw dafa juum foofu waru ko laal. boucher tamit ni mu waxee loolu waru ko wax. parce que loolu tamit yokk violence la xamal lan mooy lan mooy yow Balla Gaye école de lutte Balla Gaye la nga moom école de lutte Mor Fadam Balla xaritam la am na droit wax ci moom am na droit protéger mais si fois mu dugg ci loo xam ne tey violence da cee am rek bu boobaa mën nañu porter préjudice ñun. que boobaa man la ñuy wax te avant booba dinaa ko wax euh, aussi mu xam. c'est limite quoi. parce que koo bokkulul écrit waroo taxaw ci cumukaayam waroo koo xeexal waroo faa dugg di def yenn tension e puis te loolu mën nañ ci suspendre sa école sax te loolu c'est très dangereux. loolu dégguma ko woon yaa ma ko wax mais dinaa ci wax moom. ma ñëw ci combat bi waral coow li muy rëg-rëg Sa Thiès combat jànq naka nga ko analyser. non ñaari xale la ñoom ñaar ñëpp am nañu doole ah. Mhm. dama leen gisee ñoom ñaan ñëpp am na nañu doole bon ñoom ñaan ñëpp mën nañoo bëri combat boobu c'est le combat de tous les dangers quoi. mais keroog mais keroog ñu gis jàkkaarloo bi ñu bari lañu analyser que ni rëg-rëg moo ëpp doole Sa Thiès parce que bi ñu nee bërët Sa bi ko rëg-rëg poussé daanaka xawoon naa daanu en tant que yow nga analyser loolu ñu waxtaan par amateur rek nag bu wax waxi géej waaye ay non non bëri xeex la nag bëri dóor la na wax ci taxawaay ni ma gisee rëg-rëg il est très en forme ci compétition la jóge am na doole mën naa ba ma Sa Thiès mun naaw dali fële mais la am benn kurpeñ da koy jeexal bëre dóor la. Mhm. man mën na ko jiitu ci ci doole arbitre arbitre sifflé Sa Thiès dóor ko mu waat. Mhm. làmb lu nekk nga ci. Mhm. mais ci gis-gis moom Reug Reug ko gis xam ne am na doole. Reug Reug est-ce que fi mu toll nii mbër ëpp na ko doole mbër ëpp ko doole te xale la mais Sa mosoo koo gis mu nekk en baisse de forme. nu gis Sa ni Sa Thiès mi tey entraîné wul waa Sa nekkul ci forme noonu. te bëre dóor la nag bëre dóor lu ne xaj mais mu mel ni ñoom a bokk ay système mu bëre. bu kurpeñ tàkkee nit kenn mën na ci jum. Mm-hmm. lam xam-xam da ngay dàq bëri sax ñu dóor la nga nga réer. Mm-hmm. waa ji exploité ko dem yoonu. Mm-hmm. loolu da ciy am quoi. loolu da ciy am. mais ñoom ñaar keroog ñu doon coowee jàpp seen signature wax ji xam nga dem ba dem ba journaliste yi ñoo dugg seen diggante ñu doon ñu doon reporté jàppoo ne loolu noonu mën na andi problème ci làmb. ke non ji nga face à face yi aussi foog ñuy gën a xool moi je préfère face à nuy toog ñoom ñaar di jàkkaarloo di wax mais tant que ñu ngi jóg kenn yor micro ñuy tegante dënn ci ñaari góor kenn mën na dépasser moromam wala kenn laal moromam étincelle la day takk tàkk. Mm-hmm. waruñu approchante wala am na ku war a nekk seen diggante. Mm-hmm. mais dajale ñaari ponkal kenn ku ci nekk boo xee ngeen ko dégg li mu la wax yokk affaire bi loolu nag moom mën naa créer violence. Mm-hmm. rien que loolu rek mën naa créer violence ndax mën na noo wàcce micro yi waxante loo xam ni ki ci des du ko mën a muñ te bul ma laal nga laal ma tamit corbeille mën na faa tàkk mais yooyu tamit bu amee CNG da ciy jël ay responsabilité bu boobaa nag moom ki créé face à face bi moom ay responsabilité am elle est pleine et entière parce que nag moo bàyyi ñaari nit ñu tegante dënn ñaari ponkal yu war a xeex ñu tegante dënn saagante mën faa am corbeille mën na fa jóg loolu baaxul fi may jeexalee ci combat yooyu mooy surtout ak Papa dafa mel ni yow foofu noonu ko samp sa dënd daa mel ni sa war a wax. non surtout Papa Sow moom Papa li koy may ndam ci combat bi mooy xeex rapproché parce que xam nga ma luy xeex la mais mënoo xeex ak ku la surveillance à da koy ñëw bu xeexee mu bëtt ko senn ko. Hmm. loolu rek la moo ko ci man a may dam mais surtout problème am moom mooy xeex à distance daw jàppante bi faaj faaj bu metti bu xeexul du daal. foog mu xeex foog a mën a am ndam te moom na wàcc rek xeex. Mm-hmm. ndaamaa njool mi wax dëgg yàlla bu nu daje di xeex. Mm-hmm. njool mi bu ko soree di dóor a jàpp ko. Mm-hmm. bu yàggee du baax. waaye bu bàyyee nu bëtt ko man nañ ko senn de. ndax papa day xeex te daa mën a bëri. waaw ma ñëw ci Gris Bordeaux Ama Baldé. Gris Bordeaux Ama Baldé moom wax dëgg yàlla Ama gën a nekk xale. léegi ah, foofu bala maa ñëw ci seen bi. waaw Modou Lo moom kon contrat moog Ama jeex na. non parce que mënuma mënuma wax ci contrat Modou Lo xam nga tax aw ma tenant ak aboutissant yi man d'après mes analyses toujours li may wax dama koy maîtriser. Hmm. parce que contrat bi nga xam ne moo leen lié woon ak seen ne foog ma gis ko saytu ko soog a a xam jeex na wala déet. mais combat amul amul amul date d'expiration. non contrat boo gis day am deadline day am foo xam ne foo tolloo. dafa war a expirer dafa war a jeex. mais contrat bi comme téyewu ma ko mënu ma ko analyser. kooku ménager moom mooy mën a xam wax dëgg yàlla ndax contrat bi jeex na wala jeexul. am na yoo xam ne dañ koy signé contrat yoo xam ne CNG lañ koy signé boobu ménager bi. moo ko gën a mën a maîtriser que man am contrat xam ne hors-side la yoo xam ni euh, euh, promoteur bi bu joxe xaalisam ci biti day yuti avocat hmm. avocat boobu toog lan fa bind man mënoo mënoo ko xam hmm. te sax ñu bari ñu ngi wax ci làmb dañuy waxandoo nii rek mais dafa am loo xam ne da nga ko war a saytu jàngat ko contrat da koy lire saytu ko entre lire entre les lignes xam définition yi xam tenants yi xam aboutissants yi soog ci mën a wax d' accord ñëwal ma ci Ama Baldé Modou Lo Ama Baldé euh, Gris Bordeaux. non Ama Baldé Gris Bordeaux moom combat la comme comme ni Balla Gaye Gris doone combat rek. combat la puisque Ama Baldé xale la toll na ci lamb moo gën a nekk xale ah, am na doole mën naa bëree star la Gris ah, mën na ci am chance ndax Gris dóor kët la bu xam fi muy dóor. Mm-hmm. do kurpañ bu dal nag sa xam-xam mën naa jeex. Mm-hmm. ama lu mu mënti def. am na faayit bu Gris Bordeaux di xeex na ko calculer. ba teel a jàpp teel a bëri. na teel a jàpp teel a bëri rek. parce que géew la de. waaw. Euh, foofu noonu laay jeexalee ci wàllu làmb ji mu mel ni euh, du ma ni du ma ni coogu mbër du ma ni suqu mbër mais souvent ñu gis ni làmb violence yi nga xam ne day am ci lu bari ci côté ñi ànd ak mbëri la parce que boo xoolee keroog signature ba maa ngi gis Pape xam nga moog liiru jaan wax ji. est-ce que loolu noonu waa CNG tamit jarul ñu ci jël seen i matukaay parce que man bu njëkkaan lamb li ma ci xam manager moo doon ñëw mbër ànd ak benn mbër ak promoteur ak manager jeex na ñu dugg def seen signature mais léegi dangay gis mbër mi day ñëwoon di ay 5 car ay 6 car ñu gis ay ñam Pape Sarr ay liiru jaan ku ci nekk di wax loolu noonu CNG est-ce que mënuñu ci jël ay matukaayam. di nga CNG li ko war c'est la réforme des textes ki nga réforme textes yi li ñu indi lépp tere woon nañ ko ci làmb. mais nit ñi ñoo neexut a organiser làmb ñoo war a civiliser ñoo war a nitee d'abord xam nga lan mooy problème boobu mooy tey bu ñu demee ba indi ni la préparateur mystique yi ci biir géew bi dañ leen di génne ñuy def affaire bi ci biti ci seen cumikaay dem ba charme làmb commencé wàññeeku ñoom xam nga lu ñuy wooyee charme làmb charme làmb mooy est-ce que charme làmb mooy xeex ci face à Hmm. est-ce que charme làmb mooy kenn ku ci nekk indi say nit ñii di saaga ñii ñii di saaga ñii est-ce que charme làmb mooy un préparateur mystique hmm. dugg ci géew di di di xëpp ay suuf hmm. loolu mooy charme làmb loolu du charme làmb des fois dañuy confondre vitesse ak précipitation waa làmb CNG a boo fait pour organiser waa làmb mais ñi ngay organiser di fekk nu nangu nu organiser leen parce que loo leen tere wala loo dindi ci ñoom ñoom dañuy kaas loolu di wax lii waruñu ko def lii waruñu ko timing bi ñu wàññi nañ ko. préparation mystique bi dindi nañ ko ni mu ni doon demee. géew bi fees dell nga ñëw sàmm fa sa cumikaay. mais yooyu yëpp ñu dindil leen ko mais ba léegi am na ay nit yoo xam ni ñu ngi kaas. Mhm. ñu ngi kaas mais dem dem dem dem dem face à face. kii indi ñaari oto kii andi ñaari oto nu daje ci biti di xeex foofu nu koy defee yàq foofu kenn xamul c'est du n'importe quoi loolu CNG moom da ko war a dindi completement ñuy def ay duplex lu fekkee par exemple mbër mi dafa war a def face à mën na toog ko ñam ak waa këram wax kee toog fa le répondre loolu moo gën a civilisé nga dajale leen dans un milieu nu toj verre ya gaañ fa ay nit ay agression di am ci aux alentours te CNG a tout fait pour enlever ça mais ba léegi am na ñoo xam ne yooyu moo leen neex. mais booy nag loolu leen yàkkamti puisque dañ ciy liggéey. d'accord fi may jeexalee mooy ci wàllu règlement CNG ren euh, lan la ci yokk wala lan la ci wàññi ci wàllu làmb ji. non CNG règlement yi mu indi yaa ngi dégg ci groupe WhatsApp yi am na sax ay ñuy dajaloo di def ay réunion ni d'accord temps bi la wàññi. temps bi deux fois cinq minutes yi ñu wax am na ñu ni deux fois cinq minutes yi. Mm-hmm. am na ñu ni deux fois cinq minutes yi dafa dafa dafa dafa gàtt. ci biir bëre bi waaw. mais trois jours jàll na trois trois euh, am xam nga tëgg nañu trois journées trois journées yi amul match nit. Mhm. pourtant dañ ni woon match nit day bari. Mhm. amul benn journée bo am match nit. Mhm. lamb yi nu ngi ko commencé siffler à quatre heures et demi mu jeex presque 19 heures lañ commencé siffler grand combat yi. xam nga kooku wàññi nañ timing bi. na ñoo xam ne sawaruñ ci amul benn sport de combat dans le monde boo xam ni dem na au delà de cinq minutes légence gens nañ xalaat bu baax. lutte olympique deux fois trois la. ay 3 minutes 5 minutes de combat yu intense ku la ni dafa dafa gaaw moom moo ko xeexul chaque jour ma wax ko. Mm-hmm. làmb rek moo am seex xeex 10 minutes nu soogaate mm-hmm. mais ay nit lañu c'est des athlètes. Mm-hmm. mais nit ñi nu leen yërëm aussi. mais nga ni dafa gaaw match nul day bari nangam nangam foo ko teg. te na am 3 jours na yoo xam ne essayé nañu ko amul match nul. kon déjà li doon wax taxawul amul. comprendre benn entraîneur. takk ay xaaw di sotti ay butéel mais loolu dafa ñaaw sax image boobu. un préparateur musique nun on dans les sports làmb. mais làmb dañuy wax ni làmb la wala nu leneen la. ab préparateur musique nan lay takk ay xaaw ak ay kii di sotti. am jeune boo xam ne dans le marabout la làmb temps de combat bi jot nga dugg ci géew bi tegal fa 10 butéel di sotti ñu lay wone nga bëgg doon star ci kaw mbaru nit pour boo génnee ñeneen di jigéen ñeneen mais yooyu la gars yi bëgg a dindi. nu ne la léegi mbër mi cumikaayam lay sotteekoo li muy sotti sotteekoo. ci temps bi mu war a bëri 5 minutes yooyu wala 10 minutes yooyu. buy dugg ci zone de combat bi waru fa dugg ak dara zone de combat le ménager moo fa am droit taxaw fa ak l' bu nu demee rek combat bi ménager bi day génn entraîneur bi mooy continuer assurer intérim bi même bu mbër mi blessé entraîneur bi euh, ménager bu amul droit accéder ci biir dañ ko war a bàyyi nu yóbbu ko au soin. Mm-hmm. ba pare mu soog a génn. dem ci ménager bi ci biti. mais làmb dañ koo réglementé. réglementation nag ñëpp mën na ci d' accord amul benn règlement dans le monde bu nu wàcce boo xam ne dangay am ñëpp d' accord ci. te ñoo xam ne arrangé wu leen. mais làmb yi fan yi ni muy teel a tase agression di nga agresseur guddi la bëgg. la nuit porte violence. ñoom xam nañ ko. pourquoi ay nit bëgg ay mag yi jëm bëgg ci ànd ak ay xale di leen jàppale ci loolu. ñoo xam naa la ay ay parrain ba daa tardé parrain bi avant muy ñëw dañoo tase gars yi ci bunt bi pourquoi nit ñi bëgg quelque chose et son contraire nit ki mënoo bëgg nu defaral la assainiral la géew bu leer naan ñi nga xam ne doo fa gis kenn amul càmbal càmbal hmm. mais xool li daan am ci géew yi préparateur mystique yu xëppante suuf hmm. loolu mooy charme la am jël ay bopp mbaam jël ay jaan jël ay lëg di leen kàjji ci biir géew yi jël ay picc di leen noote hmm. loolu mooy charme la am loolu charme la am ay ndënd dóor ko ay mbër gars yi fay ay bii yu seer ñu leen jóg leen ñibbi làmb ji jeex na loolu mooy charme làmb. Mhm. gars yi il am sawar raison garder. d'accord parce que làmb dañ ko war a assainir te bu ñu lay assainiral foog ñu defar lu leer. Mhm. làmb les textes sont prédéfinis ñëpp gis nañ ko xam nañ ko liir nañ ko leer na ci seen bopp. keneen ku ci def leneen yaa ci bëgg a indi leneen. le CNG la li mu def nii yëpp pour làmb tegu ci aw yoon la ñoom lañ ko defaral. d'accord euh, mu ngi mel ni ñu ngi may signaler ni li ñu ci waxtu daanaka jeex na. tey nag ñoo amoon sunu sunu père euh, muy père Djily li tax waxtaan ak moom neex nag mooy nit ku dëggu la te làmb li may wax rek bëri na ñoo xam ne ñu ngi toog di commentaire te xamuñu dara ci làmb moom da leen indil texte wax la mbër mi lii wax la mbër mi lee wax la mbër mi lale kon yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci école de lutte yi dem leen gëstuwaat texte yi parce que mbër mi mooy bëre parce que mbër mi la dagg mais mbër mi tey mën naa ñëw topp ñi nga xamante ni ñoo nekk ci ginnaawam pare xaalisam jeex mu naan waa CNG waa CNG fekk na texte yi nga xamante ni moom la ko CNG jox moom moo ko liirul moo tax am nag entraîneur wala am dirigeant wala am manager mel ni genre Djily Wade yi daf ci baax père sa mot de la fin lan ngay tàggatoo. waaw léegi li may tàggatoo mooy dafa am benn lancé bu li may waxaat aussi mooy le président Bira Sène di CNG. Mhm. moom foog mu xam ni moom lañ dénk. làmb démembrement état la CNG moom lañ ko dénk moom mooy rendre compte il ne faut jamais muy céder ci ay pression yoo xam ni c'est négatif puisque làmb conflit d'intérêt bi moo tax ñëpp mun noo àndandoo dem ci benn chemin parce kenn ku ci nekk da ngaa am lu la arrangé am lu la arrangé wul li arrangé ménage peut-être arrangé wul président d'écurie li arrangé président d'écurie peut-être arrangé wul entraîneur tu kenn ku ci nekk yaa ngi waxee fi la neexee loolu nag bu amee te nga doon nit ki nga xam ne yaa war a rendre compte yow da ngay ferme ci say décision làmb du réglement boo xam ne euh, mënuñu koo changer sunu waxtaanee ñoom ñëpp seen biir nu saytuwaat li nga xam ne par exemple war nañ ko ci yokk nu yokk ko ci liñ ci war a wàññi nu wàññi ko ci mais nu bind ko mu leer nañ nu notifié ko ñëpp xam ne ñii di def ñii di def nii tey amul benn mbëru làmb boo xam ne da nga daan gis mbër bu bëri ba pare ñëw du am reliquat man je suis un ménager j'ai vu des yoo xam ne dañuy bëri ba pare ñëw ni la euh, euh, man xam naa ni awuma reliquat wala lu ma war a dolli CNG ko kon xam na li ko doon xaar xam na li mu def léegi nag loolu amatul parce que bu nee la yow mystique bi fii la yem sa temps de combat lii la dootoo dégg nu la dagg nañ la ay millions ci préparation mystique mystique la mais da am foo ko yemale loolu sax seen xaalis loolu mooy dëgg loolu daal mooy problème bi di nuyu ñëpp di ziar ñëpp di xam ne nag man waxuma pour ne kenn làmb laa faral à mon âge tolluwuma fu mooy may parparloo ci làmb lépp lu may wax ci làmb c'est pour làmb avancer wala mu jëm kanam képp koo xam ne par exemple gisoo ci bopp ci li ma lay wax aussi il faut pas m'en vouloir je m'en excuse merci beaucoup